asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ki ñu jàkkaarlool nag xam ngeen ko muy sama copain Lirou Diane Pam Ndiaye Lirou laa jàkkaarlool ni xaritu Tuuti Yaay Sarr. Tuuti Yaay Sarr sama Espagne sama xarit tam dëkk Guédiawaye Balla Gaye numéro waaw maa lay ziar maa ngi lay ziar la my boy. ci loo ne

ku ne woon combat suba suba mu bëre man xam naa loolu ndax mi ngi liggéey ah. Hmm. ah ana ana ana lag moom. la de gerte mi ngi fi mi ngi entraîné. guy guy gaa ngi fi. Sa Thiès ñëpp a ngi fi. géejewaay dañoo gis ne ren ñaari combat lañ am yu mag. waaw yàlla dogal na gagné nañ ko ñëpp leen bëre. yàlla dogal na gagné nañ ko. saison bi kan. ma ne yàlla na ñaari combat alhamdulilah yàlla yokk. nañ déglu wante. ñaari combat yu mag lañ bëre ren yàlla dogal na ñu gagné ko. waaw Balla Gaye numéro 2 ak Lac de Guiers numéro 2. Balla Gaye bi mu bëree ba léegi kenn waxaatu ko. kan nga yaakaar ne moom la Balla war bëri. Balla ñi Balla bàyyi fu liggéey Balla koo ko jox mu bëri Balla day liggéey Balla day liggéey adversaire bu mat adversaire prouvé soo ñëwee Balla day bëri yow Balla day liggéey xale la daa nekk si yoon. ñan nga jàpp ne ñooy ay adversaire bari na Balla bëri na bu naa bëri ak ñëpp maa ngi dégg maa ngi dégg nag waa kër Modou Lo neen soxlawuñ ko d'accord waaw su leen neexee am nañ plein droit su leen neexee wax nañ dëgg tam ñooyee dañuy féete <laughs> seen courant ba ci kanam waaw di saa sal suñu bëggee yàgg courant bi <laughs> ay dan sadji gi la ilaha illallah ay doomu duuba lees ci bàyyi Mouhamed séeri buri bàcc li suñu bëggee yàgg courant bi den ko fi bàyyi ah yaakaar ngeen ah la ko wax li tax ñu wax lool ñoo ko xam nan ko suñu bëggee yàgg courant bi dañ ko fi den ko fi bàyyi mu la su bëggee yàgg courant su bëggee yàgg courant bi na fi bàyyi Balla Gaye ah moom woo ay mbokkam wax nan ko ay mbokkam wax nan ko. dañuy dóore léegi de. kan waaye nañoo dóor Balla <laughs> doomu duuba lees ji laa ilaha illallah moom du taxaw di lewatoo jëmale su déedéet arbitre suuf rek mu dox. da ngaa bëgg a wax Modou Lo ñu mu dóor Balla du ci bopp. waay waay yoo lool lépp wax jaak moom daal mooy roi des arènes yàlla na ko roi bi jik waaye su bëggee ñàkk roi na jël Balla. su ko jëlee su ko jëlee ñàkk ko lu tax ñuy wiir wiir xam nan ko nan ko jël ay Balla Gaye 2 doomu duuba lees ci. Balla Gaye Bombardier loo ci wax. combat la Balla Gaye bàyyi fi ne nee naa Bombardier bi mu daan Balla Gaye Balla Gaye dafa feebaroon dafa feebaroon. barki Cheikh Ahmadou Bamba da feebaroon waaye Balla mu nekk en forme ah doomu du bale ci kenn du moom bàyyi Mouhamed. Gris Bordeaux Balla du combat Balla daan na ko Gris ba léegi bëriwul ah na dem jël mu dem jël Lac de Guiers combat la. Ama Ama Baldé Modou Lo est-ce que jaadu na. kenn mënu koo bañ mbër la Ama Baldé la dafa prouvé dafa prouvé kenn mënu koo bañ ku bëriwul ak moom da nga koo ragal Ama Baldé dafa prouvé. na xale yi may man ñi may xale yi saas mooy yoon ama mbër la dafa prouvé daan ay moroomam daan ay magam ama Gris Bordeaux adama ama Baldé Gris Bordeaux combat la ama Baldé Gris Bordeaux combat la waaw ama Modou Lo lamb la wala du lamb xoole fii lépp lamb la ñëpp dañuy business Modou Lo su ko neexee ne du bëre ak Ama Baldé léegi am na peut-être roi mooy roi des arènes waaye Ama Baldé mais daal dafa prouvé kenn mënu ko bañ dafa prouvé. ana Boy Niang. Boy Niang gis naa ko gis nag de wax dëgg yàlla bu fonde bi këppoo ba léegi gisuma ko dégguma xaw ma fu ci lu fonde bi kay këppu. ah xoolal rek fonde bi dafa këppu. fonde bi dafa këppu. dafa mel ni kon lim leen sonaloon yëpp la rëgër fajal na leen eh, jeex na jeex na. ñëpp ay champion loon yàlla na leen yàlla defal jàmm. Boy Niang champion la ñoom Ama Baldé ñoom ñëpp ay champion la dañoo prouvé ay Lac de Guiers kii Sa Kesso Gouye Gui ah ñoom ñëpp ay morom lanu. Lirou nag am na koo xam saw mbër la ci la bokk. Adama Diouf champion bu mag baa ngi noonu. waaye bu ma waxee Adama Diouf dof boobu waaye xoolal bu ma wax champion d'Afrique kooku tapet la ragal la moo tax mu dem ci bëri sam bi ko Malick ñaa dóoree mu xëm ba léegi la daw génn làmb ci bëri dóor tapet la keroog bi El Hadj la bëreel te El Hadj Mbaye bi mu bëri dafa gaañoo ci ndigg. non kooku ragal la. non El Hadj alaaji mbay maa ko fekk ma gaañu ci ndig. moo tax naa ko fan yee passé mu nekk ci xaw ma kan moo ko muy ratatati di wax Adama Diouf dafa wér bu ma waxee Adama Diouf bu ko Malick ñaa dóoree mu xam ba léegi dafa am problème bopp. ma dafa maa mën a corriger tuuti na ci corriger corriger ma du ma moroom tuuti na ci kër ah du dara dof la ba ko Alioune Seye du duma di ko daan maa ko indi maa indi Alioune Seye dugal nañ ko Gaston Mbengue dimbali na ko dugal ko kalaaf deux fois mu jëlee fa six défaites kooku ragal la six défaites barke Serigne Bamba Adama Diouf benn victoire la mu sam muy booy bi. non daan na ban non ñaar waaw wax nga dëgg ñaari bi mu dalee bëri ba léegi ñaari combat la ñaari victoire la mu sam naan dama laaj ko. yàgg na ma ma bokk moom man yem nee la man ku ma yab tey nga ma yab bi ma defee sot bi waaye avant may def sot kenn yabu ma waaw wuy ma maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gis nga làmb ji suñu bëggee mu ubbeeku na xale yi bëri at mag ñi. bii Pato sax nee na soxla na. non du ma moroomam bëriwuma ak moom booy bu ma wax kooku waay ma yàlla yaxal déglu ma dama lay expliquer man man ñi ma soxla daa bari te man gis ne man wulli si boppam laa war a bëreel nan ma bàyyi ba ma génn ci wulli ba pare su ma génn ci wulli bu ñu doog a wax waaw nan bàyyi moo génn ndax euh, segg ñoo saf gaa yi nag. kan ma sa gaa yi yow wala wulli moom ñun ñaar ñëpp su caaxaan jeexee dëgg des. noo su jaaxaan jeexe dëgg des ñoo saf gaa yi ndax man tey jii moom nee na moom may bës d'accord su ko neexee waaye moom tamit may naa ko bës si benn côté wulli waa ah? <laughs> non ndax moom fi mu man mii tey jii diaspora bi man ñëpp may woo restaurant Mama Dior ah, ah, ah, sama kere mu naa wa ñoom Bamba sama booy yi fans man damaa am ay fans club Italie am fans club France am fële euh, Angleterre sama yaay Adja Gass sëñ Cissé mu sëñ Babacar maa ngi koy nuyu sama sëriñ la. ku mën nii nii nii nii fi mu ne nii nii nii nii ma ko laajee yow da ngay wax da ngay wax da ngay wax da ngay wax dëgg. waaw su ma waxalee dëgg te yàlla tax su ma waxee dana damaa jàng. waxal dëgg rek yow Balla Gaye 2. waxal ko sa bopp. mu ah wax naa ko. loo wax loo ma wax. ku mën ci laa bëgg. Balla Gaye 2. moo fi mën. Eh, loo jar wax. moo fi mën kay. Balla Gaye Bombardier ko mën. Balla Gaye ko man. Balla Gaye Gris Bordeaux. Balla Gaye ko man. Balla Gaye Eumeu Sène. Balla Balla Gaye ko leen man ñoom ñëpp tout. Balla Gaye Modou Lo. bàyyi man waaye bu la waxee loolu Modou Lo nag mooy roi des arènes waaye su bëggee ñu bëgg firndeel ñu xam ne ku man Balla Gaye Modou na ñëw jooju Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène man ah Modou Lo Eumeu Sène ko man ah mënu ma faa wax ñoom ñaar de ñëpp ay champion la foofu mën laa wax mënu wax xaw ma ko man ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ay champion lan waaw xaw ma ko man yaag Armé Diouf man man maa ko man yaag Wula ko man maa ko man yaag Big Pato waaye bu bu waxum bu limaale bul boole Big Pato samay mbir waaye dimbali ma waay yow ko man kooku dafa kooku grand boobu da ngay waar waay bu ma maa ah booy xool bu dugal foofu ma ah. ah yaa waaye bu ma wax rek kooku waaye kooku xam dóorkat la politicien la. <laughs> kan lay wax léegi kan la wax. xaarim nga xaarim nga politicien la. bëri ngeen mu daan bëri nan mu daan 2007. nii ak Naaru Soka la Naaru Soka suñu leerul ndar la nu bëree woon leerul. booy rëbës trompe maa ko daan booy rëbës maa daan. booy rëbës maa daan booy wuyu ma yàlla yaxal maa ngi nuyu sama doom nday jëy seen. Modou Mbacke baax yaay Couture sama yaay ji Adja Gaas sama sëriñ bi sëñ Madoun Sey borom taw féex maa ngi koy gërëm di ko sant sëñ Madoun Sey sëñ Madoun Sey sëñ Cissé sëñ Cissé fii la dëkk sëñ Cissé sëñ Madoun Sey borom taw féex dafa dëkk Géejawaay di def lu baax te ku def lu baax ma wax ko. Géejawaay la dëkk ñoo ngi fi ñoom mooy sëñ Cissé at mooy sëñ Modou Sey at sëñ Modou Fay jàmm gën at sëñ Xaadim Kanji at sëñ Modou eh, eh, sëñ kii nu mu tudd sama sëriñ bi sëñ Xaadim Kanji at sëñ Modou Fay at sëñ Samba Ndour Samba Ndour daf may ñaanal di ma bokk sama xarit la. a Masar France laa la fekkoon ñu rejeté. waaw yàlla baax na yow saytaane nga waa buy. maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ko kenn du nuyu waa géej waaye du nuyu diaspora bi nga dem ambassade États-Unis ñu may la 10 ans. booy maa ngi gërëm ñëpp. léegi lu wuli nu mu tuddati. liiru liiru. waaw ji instant bi dafa mel ni doxul de. waaw non du question ñàkk dox ko yi taxawagul te combat yi day taxaw gars yi promoteurs yi sponsors yi la ñuy xaar. lan mooy problème mu làmb maa ngi ñu waxtaan ci xel lan mooy problème mu làmb ak nan lañ mën a def ba solution am. solution mooy pour am euh, pour mu am état bi il faut ñu jàppale promoteur yi promoteur mën a tëgg combat yu mag yi combat bu mag dafa metti nga jël lu métti ay centaine millions nga def ko ci benn jour. comprendre nga fay bu ne mbër bu ne centaine millions ba pare amoo sponsor mbër promoteur duñ ko def duñ ko def léegi nag état bi tabax na arène national na jàppale promoteurs yi ñu am euh, sponsor gars yi mën a tëgg combat yu mag yi. loolooy tax mag ñi may xale yi sens xale yi yéeg c'est tout loolu la ministre na wax ak président jàpp ci gars yi euh, société yaa ngi fi am ba ñun sport bi sunu sport lamb la ñoo moom lamb jéggaane wuñ ko fenn tubaab bi dañuy jóge bitim réew ñoo di seetaan lamb comprendre nga bëre dóor Sénégal lam amul fenn soo demee Espagne bëre simple la nga dem France bëri simple la fa foo mu dem bëri simple fii nag ñun bëri dóor ñoo ko moom état bi na jàppale gars yi promoteurs yi mbër yi bëri ah su mbër yi bëriwul du baax de te am na euh, révélation buy ñëw ci suuf gars yi da leen war a tëgg ay sama waa ji kenn du moom jeey seen gis naa ni muy jàppale xale yi géejaway journée bu journée bu mu tëgg lu mu bon doom doom doom dañuy dugal six mbëru géejaway loolu loolu loolu loolu mooy bëgg sa gox. loolu ma te ay moyen boppam lay demee. pay per baax na ci baax na ci amuñu sponsor moo tax gars yi su ñu amoon sponsor duñ ko def ndax sponsor du nangu loolu gars yi su ñu amoon sponsor yu am doole yi fi daan ne ay jamonoy 2004 2005 sponsor yooyu dañ fi nekk suñ fi nekk mun naa tudd seen tur wala. sponsor yi. système bi ñu def nii daal. waaw non système bi baax na loolu lépp système bi laa soo gisee li ko waral ña ñàkk sponsor bu am doole. ñàkk sponsor bu am doole moo tax gars yi di ko def su la amoon sponsor bu da am doole du am ndax sponsor bu am doole moo tax gars yi di ko def en direct ci télé yi ñàkk sponsor bu am doole moo tax ñuy def loolu. foo toll ci waajtaay bi sa diggante gu. non maa ngi pare moom vraiment maa ngi. yaa ngi entraîné est-ce que non maa ngi entraîné ah fan yii passé gars yi fekk na ma fi may entraîné jël ma benn site internet. <laughs> mais est-ce que euh, euh, émission bi taxul woon nga dem foofu. non non non man chaque jour damay entraîné moom xam moom moom moom xam na moom xam na maa ngi. entraîné séance nga def. non man fi mu ne nii wax dëgg yàlla moom temps yi moom wàññi naa moom wàññi naa wàññi na wàññi naa moom wax dëgg yàlla. wàññi wala trois wala cinq non wàññi naa. da ngay bàyyi ba après combat bi gën a jege si ma doog a yokkaat waaye fi ne maa ngi etewu daal dafa tàng. dafa tàng entraînement tàngaay bi xam nga su entraînement bëri bi dala baaxul dalay ngeerloo rek c'est trop dafa tàng moo tax. sa combat wulli lan la laaj. combat bi li mu laaj daal xeex ak moom ba mu tëdd rek xeex moom ba mu tëdd ndax dafa mën a xeex te bopp bi dafa bëgg xeex jàng naa boobu dafa bëgg xeex arbitre bi suuf la mu dox ñëw sa kaw laa ilaha illallah ay booy bi doxee ba ñëw sama kaw ay maa bëgg loolu